jëf TapTap Send soo téléchargé application bii di tab TapTap Send dinañ la may 10 euros ak code TV Dero Siga jangale mo ñaan ko may eh, eh, kala saan ay sagamar la sole bongana babu el mamari la bele wade ka jeta wanga ka sagamar la sole bongana babu el mamari la bele wade ka jeta wanga ka sagamar la sole bongana babu el mamari la bele wade ka jeta wanga ka sagamar la sole bongana babu மகன் மன்கின்றான் போசாலை மனிதன் வாங்கி பாதோ ககே du tal maa jaawale lonku na ko Moussa Ndiaye lonku nañ la caxabal Moussa Ndiaye lonku nañ la caxabal Moussa Ndiaye trois appuis la dara amagul Moussa Ndiaye moo yore ngembu Lagos bi Moussa Ndiaye saa jëmale ko songole daan na ko arbitre lu mu wax arbitre lan la wax arbitre arbitre nee na Moussa Ndiaye daan na ko arbitre nee na Moussa Ndiaye daan sawaay Ndiaye ak sawaay waat na Moussa Ndiaye wala nga moom ngeen xaw a jàkkaar lool Moussa nga koy jéem a dajale sa waay bañ na. Moussa ak sa wala lan Moussa sa waay dina la daan musa Moussa sa dina la daan Moussa woon domb wala lan Moussa sa waay jëm ko takk Moussa bañ na. wër nañ la ndombo oh Moussa Moussa li nga ko may. mbaa la daan mbotti wala lan trois appuis la Moussa dinañ la daan oh daan nañ la boy bi daan na Moussa daan na Moussa wala lan trois appuis waaw jël ba leer na arbitre Boy Djiny Mboye Tolé moo féete ndeyjoor Boy Djiny daw na jël tànk sawaay sawaay mbaa di nga ci génne Boy Djiny moo yore yéesalu Lagos bi sawaay jëm na ko prise prise ba mooy na Boy Djiny sawaay Boy Djiny sawaay waa Boy Djiny daan ko Boy Djiny Mboye Tolé daan na ko jële ba leer na Boy na ko Sanderep moo féete ndeyjoor ki muy bëreel xaw ma ko tey làmb ji daa bëri ay gan. ayca Sanderep mooy rek nga mu weex li daw na fii la ko war na ko ndombo daan na ko Sanderep daan na ko. Libidor bu Ngunjaan waaw daw na war ko Libidor war na ko da koy daan war nombo kat api waaw kat api ba leer na yéen ba ci kaw waaw leer na <laughs> Libidor daan na ko waaw bul dóor jarul dóor Libidor daan moo leen woon ginnaaw su ma nee Boy Malika sama xel dem si le grand champion ndeysaan Malal Ndiaye fàq na ma nga Europe su ma jumul ma nga Espagne xaw ma ma nga Italie moom Malal Ndiaye ayca Boy Malika moo féete càmmoñ di leen fàttali ne moom lañ fi agressé woon dóor ko balu pistolet ndeysaan gis ngeen ko mu ngi ñëwaat di compétir moom la ak George Poite George Poite bu mar mbaru ngóor sebaan bi moo féete càmmoñ Serigne Ndiaye moo féete ndeyjoor wala moo leen won ginnaaw Serigne Ndiaye do ak Mamadou Seck Mamadou Seck daw na jël tànk Serigne Ndiaye tànk ba mooy na Mamadou Seck ak Serigne Ndiaye wër-wër loo moom Mamadou sek wor wër loo Serigne Ndiaye dina ko daan wala Serigne Ndiaye daan na ko oh Serigne Ndiaye daan na Mamadou Seck Serigne Ndiaye daan na jël ba leer na ko mu moy George Paat waaw jongale na ko Boy Malika lang oh jongale day ànd ak caxabal George Paat Boy Malika di bëggee les flics du Sénégal police yi ne si Sénégal maa ngi leen di bëggee ñëw ama ko duf motardus central ma nga nele may seen amateur la day dundu lamb George Paat Boy Malika moom ngeen jàkkaar lool Boy Malika jongale waat na ko waaw ni mu ko waxee rek jongale day ànd ak caxabal Malika zongale waat na ko waaye dara waa ni koy zongale nii fii ba suba doo ko mën a daan parce que dang koy zongale rek mu mu yor tànk yi di la déglu waaw zongale bo George Paat ak Boy Malika faaxat wala lan Boy Malika bañaat na George Paat ak Boy Malika George Paat Boy Malika Boy Malika daw na moom oh George Paat Boy Malika George Paat waa faaxat na ko dina ko daan wala George Paat Boy Malika waaw ak sa waay Cheikh Pouy wala nga ne Cheikh Commando moo yore ngembulu jolli waaye beneen combat waaw daan nañ la Cheikh ma daan na ko wala nga ne Ablaye Mbodj mbaru si tor seen bi daan na ay ca Cheikh Pouy ay ca beneen combat ngi noonu waa Cheikh Pouye moo yore ngeen mbulu zone li Cheikh Pouye daw na solaat ko Cheikh Pouye waa ay ca Cheikh Pouye ak sawaay Cheikh Pouye ngoy jama faqat sawaay jël na Cheikh Pouye daan na ko yoo daan nañ Cheikh Pouye Cheikh Pouye daan nañ la moom mag Doudou Sané ñuy waajal aca Ousmane Volta daw na o file na ko mu moy sawa daw jël ko sawa jël na Volta da daan wala Volta arbitre lu mu wax Volta moo daan waaw Volta ko daan da ko waaw Volta ko daan waaw da ko faxat aca bu faas ngeen lool Doudou Sané moo féete seen ndeyjoor moo yore ngeen mbelu ruus li mook Doudou Sané la boo seetloo si tin ba seetloo si taay ñoo xaw a teel ñoo xaw a tolloo différence de poids bi bëriwul Doudou Sané daw na jël ko moom mooy faqat na ko benteñe daan na ko Doudou Sané daan na benteñe bu faas daan na ko ba tim ko di fecc ma ngay jaayu Doudou Sané daan na benteñe bu faas benteñe contesté na wax na ak moom sawaay da koy daan wala talfa jël na tànk sawaay da koy daan wala talfa ak sawaay ñanga ca talfa dina ko daan mboti o oh, arbitre dara xewagul arbitre nee na aca dara xewegul Talfa faqat na ko daw jëlaat na ko ramassé na ko Talfa ramassé na ko war na ko ndombo sa waay mbotti na ko Talfa war na ko ndombo ma koy tër dina la daan Talfa mbëru lamtooro bi da koy daan Talfa nga koy tër ma ngay bañ arbitre as bi waaw 3 appui la waaye 10 000 problème daan na fat fat 10 000 problème na fat fat Talfa ak sa waay ña nga ca Talfa ak Pascal Talfa nga koy tër ma ngay bañ Talfa nga koy tër sa waay nga jéem waaw bu daane Talfa arbitre lu mu wax arbitre nee na Talfa daan na Talfa daan na ko waaye boo jini boo jini booy toole sa waay jël na tànk ba sa waay jël na tànk boo jini boo jini mbotti na ko daan na ko boo jini mbotti na ko daan na ko arbitre waaw boo jini mbotti na ko daan na ko boo jini mbotti na ko daan na ko jël ba leer na jëm na ko doo tànk Cheikh Diagne do oh, mbotti wala lan zongole fils de Batling zongole na ko Cheikh Diagne bañ na Cheikh Diagne tagal na ko 16 da koy daan daan na ko Cheikh Diagne daan na fils de Batling Cheikh ja Assane daw na jël ko Assane jël na Doudou mu moy Assane jël na ko di ko jéem a plaqué Doudou mbotti na ko daan na ko oh da ko mbotti da nax dako ko doon plaqué noonu ba rek Sandré faqat na ko mu moy faqat na ko daw jël ko Libidor bañ na Sandré ak Libidor ma ngi koy faqat yëkkati na ko daan na ko Sandré daan na Libidor bu Ngoundiane Sandré daan na Libidor bu Ngoundiane bu la Babacar da nga ñàkk kon ak lu mën xew soo moytuwul di nga ñàkk te naan tiwu lamb mbaa di nga ci génn ma ngay génn ña ngay génn saako ya Babacar tin wër na ko ndombo penanti wu lamb la arbitre grand match ay ca combat baa ngi noonu wër ndombo waaw sa waay di nga ñàkk waaw di nga ñàkk boo génnaatee da ngay ñàkk da ngay am trois avertissement dañ lay disqualifié waaw victoire waaw disqualifié victoire pour Babacar Tine ay ca ba léegi ci tirage yi Jean Sarr moo féete ndeyjoor moo dëkk Palmarin moom la ak Georges Pot moo féete càmmoñ moom Georges moo dëkk Marloc su ma nee Marloc sama xel dem si Papi Dog le grand champion ma koy nuyu de passage ay ca ñaari mbër nga ca ay ca Cheikh Ndiaye moom moom mooy boobu borom Mbele Kajaw wala nga ne borom kër Jibaan kooku suma waay la ma koy nuyu de passage waaw Cheikh Ndiaye ma koy ziar kooku suma waay la waaye Serigne Ndiaye ak booy bi Serigne Ndiaye jëm na ko plaqué mbotti na ko daan na ko doole doxul jàmm Serigne Ndiaye numéro 2 daan na ko waaye George Poit ak sa waay oh George Poit George loolu trois appuis la dara amagul trois appuis dara amul trois Jordan na ko trois appuis wala lan wër ndombo da koy yéene wala yéene ba ci kaw dóor si suuf Jordan Poit daan na ko jëlee ba leer na. ca avertissement match arbitre match jox na ko avertissement nee ko taxawal bëre. waaw daan na ko Seer Ndama daan na ko Seer Ndama daan na ko jëlee ba leer na. problème ak Doudou Sané 10 000 problème Doudou Sané. 10 000 problème ngeen xaw a jàkkaar lool mu jóge Yoff moom la ak Doudou Sané Doudou Sané problème daw na jël ko Doudou saane file na ko wër na ko ndombo daan na ko Doudou Sané daan na 10 000 problème doole doxul jàmm. tànk Ibou Ndiol da koy waaw tànk ba rëcc na Ibou Ndiol sol na ko Bébé Boy Bambara am na ngemb ak Ibou Ndiol la. Ibou Ndiol Bébé Boy Bambara. booy bébé booy bambara faaxat na Ibou Ndiol wër na ko ndombo wër nañ la ndombo mbaa dinga nga ci génn kal na ko mu jéggi kal ba Ibou Ndiol ak bébé booy bambara kat api ba Cheikh Diagne moo leen woon ginnaaw moom la ak Sane Ndéréb fii si terrain gaal gi di leen fàttali ne Souleye Sagne borom jilaas moo fi woote woon tegal fi mbëri 2 millions 500 mille Sane Ndereb Cheikh Diagne Cheikh Diagne moo dëkk Ndofène di si Latir Diagne waaye may nuyu Serigne Bassirou Sarr borom Diané ak Intense le nouveau marié waaw di ko ñaanal yàlla rek yàlla na sëy bi barkel ay ca combat baa ngi noonu Cheikh Diagne Sane Ndereb Sane Ndereb bu Bébé laa gis mu àndal tey waaw Bébé di ko ñaanal rek fi mu nekk yàlla na ko yàlla génnee ak ñeneen ñi fa nekk ndëpp Sandrep jongale na Cheikh Cheikh bañ Sandrep ak Cheikh ñaari punkal la Sandrep ak Cheikh waaye Talfa ak Boy Djiny Talfa jël na tànk Boy Djiny Boy Djiny mbotti na ko Talfa Boy Djiny Mboy Tollé Boy Djiny mbotti na ko daan ko dafa mën a mbotti daan na ko Boy Djiny Mboy Tollé daan na Talfa Talfa jommi na Zongale mbotti wala lan mbotti na ko kal na ko daan na Cheikh Diagne Cheikh Diagne Sandrep Sandrep daan na ko Sandrep daan na Cheikh Diagne waaye Doudou Sané Doudou Sané oh Saer Ousmane Volta daan na ko Ousmane Volta daan na Seer Ndaama waaye Doudou Sané ak sa waay dina ko mboof dina la daan daan na ko Doudou Sané daan na ko. poids ñaari mbër yaa nga ca ñaari poids lourd la ñaari ndaanaan ñaari champion ñoo daje tey Serigne Ndiaye Jol Support quart de finale la ku daan di dem demi tulawaat na diggante George Poite Serigne Ndiaye Serigne jël na ko George sol na ko George Poite ak Serigne Ndiaye rëpp jogaat dara xewagul George Poite Serigne Ndiaye dina la daan wala lan jël na ko mu moy George Poite oh ñaari poids lourds yu bëre ñaari poids lourds dañoo bëre puusante wuñu Serigne Ndiaye am na ngemb George sol ne ko George Poite Serigne Ndiaye jëlaat na ko da koy daan wala George mbotti na ko mu moy George Poite ak Serigne Ndiaye mbotti wala lan colal trois appuis oh quatre mat na Serigne daan na ko l'expérience face à la force herculéenne de George Pot. aco oh Boy Djily Mboye Dollé jël na ko Boy Djily daan na sandrep Boy Djily Mboye Dollé na sandrep Boy Djily Mboye Dollé daan na sandrep jël ba leer na xat sawaay faxat na ko Saara daw na jël ko Saara nga jël sawaay bañ na faxat wala lan trois appuis trois appuis Saara ak sawaay trois appuis war nañ la ndombo Saara mbaa di nga ci génn waaw dañ daan daan nañ la saara daan nañ la daan na saara daan nañ la daan nañ la daan nañ saara oh, Ndong ziar naa la. delloo ziar bu wér. nga a def final. waaw maa war a def final. Pape Bakhoum la de. waaw combat la de. nee na ma a bokk secteur. waaw ñun ñoo bokk dëkk waaw ñun ñoo bokk waaw déedéet mosu ñoo bëri déedéet. Ah, rek. di di wax sa waa dëkk nag. di leen bëgg rek di leen ñaanal. waaw. kon waaw merci. nee na leen bëri leen. Pape Bakhoum moo leen woon ginnaaw arbitre sifflé na diggante Pape Bakhoum ak ñoom ñaar ñoo bokk secteur di nuy grand Omar buuse bu mag bi si rond-point bi ak frère am yëpp ñoom Baye Ndiaga waaw buuse yi ne si rond-point bi ak croisement ak waaw ak marché Gueule Tapée bi pap pap baaxum moo leen woon ginnaaw moom ak Abdoulaye la waaye sénégalais yi ne si diaspora bi di leen bëgg di leen ziar di leen nekk yónneeti xaalis Sénégal dugal koo tap tap zen gaaw na te wóor na. ku may yónneeti xaalis rek waaw dugal ko tap tap zen aca combat baa ngi noonu plaqué wala lan pap daw na jël na ko kat appi wala lan arbitre nee na dara amul o oh. pap ngeen xaw pap moo leen woon ginnaaw pap la ak Ablaye pap baaxum moo leen ginnaaw ku si mel ni Ibrahima Diouf bu ordinateur Séri Kumba waaw moom sax li ma yónnee tap tap seen la koy def moo tax ma xam ko ay ca ñaari mbër yaa nga ca final la poids léger Souley sañ moo fi woote woon wala nga ne Souley Sagne production ànd ak structure am ànd ak waa Jilas Pape Bakhoum ak Sawaay Doudou Sané ak Serigne Ndiaye ñoo war a def final poids lourd Doudou ñoo war a def bi daw na jël ko Pape jël na ko da koy daan wala wër ndombo Pape Ba Pape Ba ko ndombo boobi prise na ko arbitre mu wax seet teet daw na jël ko Pape jël na ko da koy daan wala wër ndombo Pape Ba Pape Ba wër na ko ndombo boobi na ko arbitre lu mu wax seet teet arbitre lan la wax lan la wax arbitre dañuy bëriwaat arbitre dañuy bëriwaat na dañuy bëriwaat ay ca ñaari mbër lañ fi lañ fi ñaari mbër yi ay yaa nga ca Pape Bakhoum moo féete moo féete càmmoñ ñoom ñaar ñëpp su ma juumul côté Fissel lañ dëkk ñoo bokk Bawol nee na ma sax ñoo bokk dëkk Pape Bakhoum ne ma man ay magam la woon waaye bëri dabante la waaw nee na lamb du maas dabante la te nee naa leen xale yi daa bëri trompeur rawatina xale boo tollool doole wala sax mu ëpp la doole. avertissement pour Pape am na benn avertissement pour passivité arbitre nee na ko taxawal bëre. ñaari avertissement Pape am na ñaari avertissement Pape bu temps bi jeexee da ngay ñàkk buñ la génnee dangay ngay ay ca ñaari mbër yaa nga ca waaw Pape Bakhoum booy bi tànk bi la soxla wala booy bi da koo bëgg a song mu ay ca ñaari mbër yaa nga ca final poids léger oh booy bi jëlaat na tànk Pape Pape jëm na ko prise Pape booy bi war na la ndombo Brise ba daa mooy dina la daan wala lan penalty wu lamb bu rëccee say mbokku rey la bu say mbokku rey la dina ko daan wala lan ma ngi koy tar ma ngay bañ ma ngi koy tar ma ngay bañ dina ko daan daan na ko doole doxul jàmm xale bi daan na ko daan na pap diggante Doudou Sané ak Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye ngeen gis nii Serigne Ndiaye ak Doudou Sané ay ca ña ngay wàcc ña ngay nappante la bu leen ma ko joxoñ aca joxoñante leen ko Serigne Ndiaye nga nii su ma juumul bi ñu mujjee daje arène nationale la woon Serigne Ndiaye ko daanoon revanche ou diggante Serigne Ndiaye ak Doudou Sané waaw gaa yaa noonu gaa yaa ngi ginnaaw borom Ndiaffate wala nga ne borom Medina borom Fass ni ki tey la waroon bëre waaye combat ba yàqu Doudou Sané yow la ñuy xaar amateur yi dañoo bëgg a ñibbi ma ngay daw di leen wër Doudou Sané ngi leen di wër sa ngi arrière mu ne ko taxawal da ngay wër wër loo Doudou Sané nee na pare na Serigne Ndiaye yow la ñuy xaar Wally lan la nii tët tët tët bëre simple bi léegi mystique bi nga si gis sax day taale waaw ni ki tey la waroon a bëre moom ak Sococim combat ba mujjoon a yàqu waaye gis ngeen ko moom ci mbapat bi di compétir moom Serigne Ndiaye yaakaar naa ne loolu avantage la pour un lutteur de sa trempe di ñëw fii di compétir ba si arbitre Mathieu ngi wax ak moom Mathieu nee na ko gaawal Mathieu nee na ko ay ca ñaari mbër yaa nga ngi noonu di waaj Doudou Sané daa mel na Doudou pare na looy wax ñi lay bëgg looy wax sa supporter yi. waaw di a baax ma seen fay. Ah, ah, ana oto bi ana oto bi. Ah, ah moom nga andi. waaw ana dig ma ko aal ma ko yóbbu si àll bi bopp. ah ana dig ma ko aal. waaw incha allah. ko permis. wala yaa wut permis. non amaguma gars yi dañoo téye a wut permis gars yi wutal leen ko permis nag. waaw moo gën de. gars yi wutal leen na ba am oto. dañoo jàpp seen bopp ko permis. mooy yoon. le champion ngi noonu ak sa Serigne Ndiaye yow gaay di xaar borom Ndiaffate yow la gaay di xaar bëgg naa la Serigne nee na du wax ma ngay diwu débat yëpp ya waaw Macha nee na nga gaaw Macha nee na nga gaaw na pare na du yomb de febrero. ca final baa ngi noonu Doudou Sané passe na ko mu may daw na jël ko Doudou Sané Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye daw na remplacé ko jël na ko Doudou Sané ak Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye ak Doudou Sané mu mel ne bëre ga oh, oh, Doudou Sané mbotti na ko wala lan Serigne Ndiaye daan na ko Serigne Ndiaye wala lan arbitre lu mu wax Serigne Ndiaye Doudou Sané arbitre lan la wax Serigne Ndiaye daan na ko jël ba gaawoo ka gaaw Serigne Ndiaye Doudou Sané arbitre lan la wax Serigne Ndiaye daan na ko jël ba gaawoo ka gaaw Serigne Ndiaye daan na ko nee daa bëri wax kay dasil Serigne Ndiaye daan na ko.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 TapTap Send soo téléchargé application bii di TapTap Send dinañ la may 10 euros ak code comme Lutte TV